asalaamaaleykum sama gars yi tey du ma nuyoo tey du ma nuyoo quoi vraiment tey ngeen baal ma ko mënu ma nuyoo ko gars yi damay laajte benn affaire focus bi dafa jeex waaw wala déet focus bi dafa jeex wala déet parce que man damaa gis ne focus bi gars yi jeexal nañ ko parce que man mënu comprendre démb président de la république ak le premier ministre projet bu am solo bi nga xamante ne ni moom lañ ñu présenté. ñu war a débattre si loolu benn dof boo xam ne tekkiwul dara ci famille am tekkiwul dara ci ay mbokkam tekkiwul dara ci bëtu askan bi génn wax waxi dof ngeen naan da ngeen di leeral ak da ngeen koy démentir loo leen di démentir ak di leeral man non man man yenn patriotes yi vraiment man man ñooñu est ay patriotes lañ sax quoi man mën naa comprendre sax ñeneen ñi sax ngeen ngeen ngeen ngeen di démentir ñeneen mais dof dof boo xam ne. moom kese moo jàpp ne moom mooy nit même ñi ko wër di toog si wetam buy def ay conférence sax ñooñu sax xam nañ ne dof la ñooñu xam nañ ne li muy wax nii du dëgg te gëmu ko mais yéen ngeen taxaw ngeen da ngeen di démentir ko ci ay waxu dofam ay waxu Balla Pouye de koo xam ne lu mu wax tey suba génn si ngeen ñëw di ko démentir pour lan loolu waaw bu fekkee bu fekkee euh, nuñ koy waxee bu fekkee euh, focus bi dafa jeex da ngeen naan focus bi jeex na da ngeen ñu waxoon dañuy focus fii ba di set voilà loolu ngeen ñu waxoon. le 17 des na un mois lan moo tax ngeen di démentir lan moo tax ngeen di démentir koo xam ne bu ko daf lay wax ay naa ne ngeen ñëw di leeral loo leen di leeral loo leen leeral projet bi ngeen wax ak sénégalais yi lan mooy projet bi ngeen ñuy wax ay waxu kii li mu wax ah du dëgg wax yow. dañ ne la fii ba vingt cinq ans le Sénégal sera en deux mille cinquante un pays souverain déglu de. le Sénégal sera autonome en matière énergétique notre électricité de demain sera entièrement générée par la transformation de nos ressources nationales gaz le vent le soleil ak cours d'eau cette énergie sera propre et compétitive Quoi wax ta ta ay <laughs> toogal bi. rombal bi yow ku wax ñu wax. su ko demal nga toog dégg nga sera propre et compétitive avec un prix modéré moins de 60 francs fukk ak ñaar le kilowatt daw leen ngeen yër ñu actuellement kilowatt bi ñaata la. Mhm. pour les besoins des ménages et de nos entreprises et industries. kilowatt fukk ak ñaar le Sénégal sera même en situation fii d'exporter de façon significative de l'électricité et de l'énergie à nos voisins. ñoom Gambie ki Mauritanie ki ñaari Guinée Cap-Vert les Malek ñoom ñii ñëpp ñun dañ leen di jaay courant te duñ Le courant bi tax ñu Le courant jaay dëggantaan te duñu wàññi dara courant dootu fi nekk est góor ñu ne en 2050. au Sénégal avons un problème lañ am mooy problème patience. amuñu patience ñun déedéet ni ñu bëgg a mel ni France dañu bëgg mel ni Espagne dañu bëgg mel ni Chine wala Dubaï wala Canada wala Amérique mais non non dañu bëgg d'ici deux mille vingt neuf loolu yëpp ñu ñu doon dikk mu am ko bu amul ñu ne ñii liñ ñu waxoon def ñu ko rek réew maa ngi nii nangam nangam nangam déedéet gis ngeen. état bi wàññi na juróomi dërëm wàññi na fukki dërëm si suukar bi wala si xorom bi wala ci mburu bi wala nana loolu nekkul objectif bi dëggantaan li nga xamante ne nii moom mooy bëgg-bëggu état mooy ñu dem ba nga xamante ne nii lekk ak naan ak dëkkuwaay dootul doonatul doon problème benn sénégalais loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy tax am réew mën a jëm kanam parce Euh, réew yi développé lépp yëpp yëpp yëpp yëpp lekk ak naan nekkul seen problème man dem naa ci réew moo xam ne butéelu boisson yi ñuy jaayee fii ay huit cent ay mille francs soo amee deux cent francs ñu jaay la butéel boobu ñun li ñuy jëndee fii ay pom ak ay banaana di ko jëndee ay quatre mille ak cinq mille boo amee cinq cent francs da ngay jënd fruit ba doyal ñun loolu mooy développement gis nga nit su demee ba nga xamante ne nii. lekk naan ak dëkkuwaay nekkatul loo xam ne lu diis la ci moom parce que sénégalais yëpp borom kër boo gis muy daw njaboot la euh, dëkkuwaay ndekki añ njaboot dëkkuwaay ndékki añ reer ndox courant loolu mooy pression wu Sénégalais léegi nag boo fexee ba yombalal ko loolu ba man cee jot ci jotin wu gën a yomb day tax léegi day mën a économiser day mën a denc day mën a xalaat day mën a tabax ay entreprise day mën a xalaat ay projet day mën a day mën a day mën a loolu nag mooy objectif bu état bi fi nekk xam ngeen tabax ay bul tabax ay oto tabax safla mënaan tabax oto tabax tali tabax tabax tabax fexe ba tabax fi ñi ngay gis ne estade ba ngi ni terre ba ngi ni loolu yëpp am na solo waaye ndax loolu mooy tax sénégalais bi mën a xiif lekk ndax loolu mooy tax sénégalais bi mën a mar naan ndax loolu mooy tax sénégalais bi mën a dëkk ci dëkkuwaay bu sell te ànd ak xel mu dal déedéet la preuve Macky Sall bu mu fiy toog ba bu mu fiy jigéen lan la fi def ci ay projet def na fi BRT def na fi terre def na fi stade am Ablaye Wade def na fi. arène nationale def na fi def na fi léegi bu ñuy wax Macky Sall ci président yi fi jaar yëpp moo fi gën a liggéey lan lañ ñuy wax ay tabax lañ ñuy wax ciment ak fer loolu la ñuy wax loolu la fi Macky Sall def Macky Sall liggéeyam yëpp ciment la ak fer waaye liggéey bu ëpp solo bi nga xam ne moom la état bii nii nii nii fixé fas yéenee dox jëm ci loolu mooy fexe ba sénégalais bi maanaam mën a ànd ak xel mu dal ndax sa xel bu dalee amuloo benn pression da ngay mën a xalaat leneen. tey bu fekkee da ngaa yor 1000 francs mu leer na la ne 1000 francs yi matul say soxla fooy jëlee loo denc loolu nag la état bii nii fixé mooy fexe ba ñu am souveraineté alimentaire mën a dund dund bu ñoŋ boo xam ne dinañu bàyyi di importe ji lu nekk lépp lu ñu soxla importer ko ñun dàll lépp lu ñu soxla dañ ko importer dara defaru luñ ko suñu bopp développement nag foofu la mooy nga fexe ba am sa yëfu bopp. bo fexé ba li ngay lek nga mom ko momal ko sa bop ding ko meuna yombal so fexé li ngay nan fa ngay dekk la ngay dox di ca aw di dem lolou yep nga momal ko sa bop moy tax ñu nan développement nak bu boba nak di ngeen gis immobilier commencé changer ndax tam nit ñi dinañ yor lu ñu denc te dinañ tala denc actuellement ni kenn talul denc lo yor def ko ci kër lo yor def ko ci dépense légui nak fofu lu mbir mi nekk mais du ay tabakh sénégalais nag ñun dañ ñoo yàgg a naxee ay tabax te loolu du tabax loolu du développement ay tabax kese du développement tabax kenn du ko lekk kon nag nañu ànd ak dal ànd ak patience te xam ne euh, li premier ministre di wax naan ñu na askan bi ànd ak ñun dooleel ñu euh, maanaam soutenir euh, gouvernement bi loolu daf koy répété lu bari ci ay kàddoom te jublu ci lenn lu dul ñu ànd ak patience te xam ne ñii fañ ñu jëmee fu baax la ñàkk ànd ak patience nag mooy waral ñu ne ah ñii daal affaire xaar bi dafa yàgg daal di koy changer indi keneen kooku ñëw gën a yées loolu tax ñu war a ànd ak patience te xam ne fa ñu jëm dinañ fa egg bu soobee yàlla te ngeen bàyyi dof yeeg ñoo xam ne amuñu benn fa chance ngeen di leen wax naan ay da ngeen leen di démentir am na ñoo xam ne jaruñu ko bu doon ñenn ñi sax ma ne waaw mais am na ñoo xam ne jaruñu ko. bu fekkee bi jeexee ngeen wax man moom maa leen dàq ruube ma ko man bu fekkee bi jeexee rek wax leen ma ko problème man moom ma commencé ruube léegi boobu ba léegi yéen a ngi may wax focus focus ngeen nekk fii di démentir ay dof lii yéeme na de. waaye lii moom ñaata at la nekk ba toll nii. ah doom ay nawet yu bëree bari bari fekk nañ ko fi ba pare nag te bul rek toll balaa moo toll ni amoon na ñu fi jaaroon ngir génération bu Sénégal 2050. mille cinquante reen yi ngeen di gis noo ko taxawal coppite bi ci lii la tënku yore nu sell te jaaru yoon su du woon du taxaw gis ngeen dat bi muy jëmmaal lépp lu ñuy taxawal ngir dëkkuwaay mucc ayib te seen dat wi nag li koy dëgëral mooy nit ñi góor ak jigéen rawatina nag yéen ndaw ñi suñu yaakaar ci yéen du dara lu dul fexe ngeen gis seen bopp ci réew mi liggéeyal ko mooy namal réew mi gis ngeen banqaas yi ni ñu lënkanteeg garab bi mooy wane wuute gi ci kom bi fexe ñépp am xëy yombal dundin wi yembal faj wi ak dëkkuwaay yi waaw meññeef yi li ñuy meññeef yii mooy li fi njiit yi digge woon te mëtal ko sëkk nag mooy tamit coppite yi ñu indi ngir Sénégal moom boppam mu boppam ah kon jot na nag ñu wéyal ñëmbat Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Voilà notre vision pour 2050.